di xeex ak bañ a lawal jàngoro ji di coronavirus l'honorable député Fatou Diouf desu ci woon benn yoon ginnaaw waral mu jébbal mairie bu Hann Bel-Air 6000 masques ak juróomi carton gel ngir mu jébbal ko askan wi yeewoo fii ci yaraax. tey dañ fi ñëw ñëw indi suñu ndimbal parce que ku nekk xam na ne euh, bi pandémie bi commencé defe naa ne mu nekkoon urgence pour ci ay détergent ay gel masque ak gants Euh, dem nañ ci centre de santé yi poste de santé yi brigade de gendarmerie yi armeel yi ak marché yi jot leen a yóbbul loo xamante ne ni dina leen mën a téye ba leneen ñëw mu nekkoon suñu première action ci maire bi parce que boobu urgence la woon mënuñu woon xaar tey nag euh, dañu am kilifa te soo amee kilifa ni muy doxee noonu ngay doxee suñu kilifa muy président Macky Sall ku nekk gis nan la doxalee ci pandémie bii fi am que ni woon na opposition woon na ñëpp bàyyiwul kenn ànd ak ñoom pour ñu dem ci xeex bi te dama defee ne nag boo amee kilifa ni mu la doxloo noonu ngay doxee kon su fekkee ñëw nañ ci commune bi bëgg a def suñu apport ci Covid 19 bi muy deuxième phase bi kon defe naa ne dañuy ñëw fekk fi monsieur le maire jël lii di masque yi parce que ku nekk xam na ne euh, masque yi port obligatoire la ba waa gendarmerie ak police ñu ciy def seen warugar ku xam ku nekk xam na ne. classe yi commencé na ci classe d'examen yi mosquée yi ubbi na kon tey dafa jaadu ñu ñëw ak suñu apport gis nañ nag li nga xam ne mu ngi koy def ci commune bi def na ko ñëpp tekki seen bët dañ koy gërëm di ko sant parce que nit ki mën na xam li ko war te du ko def su ko defee da nga koy wax jaajëf kon merci gis nañ jéego yi nga xam ne def nga ko ci biir commune bi muy ci ay vivre ay gel dañ la ciy gërëm di la sant l'honorable député Fatou Diouf di xamle ni lenn rek moo leen tax a jóg ngir jàppale maire bi ci xeexu jàngoro ji di coronavirus ndax loolee la leen jiitu réew mi sant. tolluwuñu ci cadre lu xeex tolluwuñu ci cadre dara dañu toll ci loo xam ne ni moo nekk ci suñu kanam sonal dëkk bi loolu ñu nekkat bu guerre amee dëkk ba yëpp ay takku ña solu soldaar ak ñoru solu soldaar yëpp te mën a dem ñëpp ay dem mooy jàngoro ji face ak population yi guerre la ku ci nekk arm ba nga yor moom nga yóbbu. pour mën a xeex jàngoro ju jóge fi ñun suñu arme mooy topp la jàppale la ci li ngay def ba nga xam ne lii fi nekk daf fiy jóge loolu la ñu président sant loolu la ñu def biir assemblée nationale kon su ma ñëwee fii ci biir commune bi loolu laay def ñëw ci yow li ma am ma jox la ko parce que yaa fi toogal population yi nga mën ko jël jàllale ko ci population yi naam bari na bariwul indi nañ mille masques teg nañ ci ay gel de 500 litres joxe ko parce que joxe nañ ay gel ba pare di la wax ne daal mbir maa di ñaan yalla yalla nako fi yalla gaawu a Babacar meng di rafetlu li nga xamantene député Fall Diouf defal nako commune bi ndax lu askan wi soxla won la. honorable dañuy euh, rafetlu en tout cas surtout en tout cas action bi ak fi nga génnee pourquoi fi nga génnee parce que ñepp xam nañ ne que ci mbass mi fi mu tollu Hann est une commune qui est très touchée damay faral di joxe ben exemple boo jëlee district sud bi nga xam district sud dafa recouper sept communes de Dakar boo ko jëlee Point E Grand Dakar Jepel d'erkle, Sikap Liberté Biscuiterie HLM Jepel Anne Belair muy sept communes ci biir sept communes yi Anne Belair moo ci ëpp kan cas communautaire Anne Belair moo ëpp cas communautaire te li xaw a doy waar ci cas communautaire mooy cas yoo xamante bu district di def protocole médecin bi parce que buñu gisé gisee que da nga positif rek liñu ñëk def moy dañ lay enquête def investigation ko nekkaloon en contact fan nga nee woon cas communautaire moy xamuñu kan la exactement té Hann moy ci ëpp tay nga xam ne que mbir mom doyna war alors cela veut dire quoi euh, masque yi ñuy joxé moy suñu dernière arme biñu déssé ci geste barrière te ku circuler biir commune en bel wax dëgg yàlla gis nga que sol bi des na ci sol masque léeg di nga interpeller nit mu làmb poche am sol léeg nga gis nit di wax ak moom ku Badara mu doon ci biir bi donc nga xam que en tout cas nañ encore ñaax suñu mbokk yi parce que bonne volonté 6000 masques c'est pas 300 ou 500 masques c'est 6000 masques dafay loo xamante ne c'est une quantité non négligeable lii du lu tuuti lu rëy la. ba noppi di ñaax askan wi ngir ñu gën a sol seen i masques rawatina jamono ji nga xamante ne cas communautaire yi day gën di yokk. li ñu bëgg a lancer ci biir commune bi mooy un citoyen de Hann un masque parce que bëggatuñu gendarmerie toog arrêté la takkuloo masque kooku c'est c'est pas possible te lii c'est des efforts parce que kenn du waxati ne kenn xamul lan mooy coronavirus kenn du wax ne amul masque mais lii buñ ko defee c'est pour inciter les gens à ce que ñuy sol le masque bii rek moo ñu dese bu ñu demee nag ba nga xam ne suñu masque nag là ce serait grave chiffres encore une fois ci statistiques yi mi ngi yéeg chaque jour chaque jour chiffres yi wul au niveau de Hann donc loolu na ci nit ñi bàyyi xel loolu cela veut dire quoi c'est-à-dire que chaîne de transmission il faut que ñu arrêtions. ko te bu ñu chaîne de transmission moi, Masamba jox comme ko pour que Masamba jox ko Mademba il faudrait que les gens n'y ñi di insister mën a sol les masques honorable député dañ lay remercier bu baax a baax. ay masques ak ay gel yu l'honorable député Fatou Diouf jébbal maire bu an bel nga ngir askan wi mu nekk acte bu am solo bu ñu ci maire bu bel ba noppi di woo bonne volonté yëpp ngir ñu def lu ni mel ngir ñu gën a mën a xeex jàngoro jii di coronavirus